salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Papa Fata Faye euh, nekk cycliste mu nekk ku xam velo mu nekk sa passion euh, mu doon nag kam mbir moo xam ne sénégalais yi bari bëgg nañu ko waaye xamuñu ko parce que vélo daanaka ci suñu aadala la bokk ah ñun Casamance. le premier moyen de transport c'est le vélo. Euh, léegi maa ngi lay raconter benn anecdote ak sama waajur bu góor. Uh-huh. il est âgé mais jusqu'à présent dafay dawal vélo. Euh, tu m'as fait comprendre aussi que le vélo a des en tout cas des effets thérapeutiques. fait donc mu doon lu am solo. Mm-hmm. au-delà du sport. Mm-hmm. le vélo quand même doit être un élément boo xam ne jox nañ ko dayoo war nañ ko jox gëdd. bi bi ko war. Euh, monsieur Faye ñoo ngi lay jaajëfal bàyyi la déjà laataa ñoo tàmbali waxtaan beeg ak yooyu très rapidement nga nu yokk euh, internet di waaw euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ci jiital yéen waa Sénégal ci wax dëgg yàlla attention bi ngeen am ci lii nga xam ne ñi ngi koy dund mu doon lu jafe lool ngeen ngeen invité ñu fii pour ñu waxtaan ci ak yéen vraiment di sant bu baax ñi nga xam ne. internautes yi di leen sant bu baax ñi nga xam ne vraiment ils tirent le maximum d'informations surtout de nature euh, je dis même euh, sportive et autres. ci ci Sénégal. waaw de lépp la ñuy bind moom. waaw <laughs> ñun bàyyi ñu dara. <laughs> Ah, voilà spécialisé wu ñu. nous sommes un site d'information générale. Ah, ah. euh, monsieur Faye c'est quoi le problème du vélo au Sénégal le vélo sport. waaw sport d'une manière générale mais le vélo aussi en souffre plus. Mhm. lu tax parce que jafe-jafe yi ñuy am mooy suñuy njiit wax dëgg yàlla fi mu toll nii dañu deful lenn loo xam ne dafa mànkoo ak li nga xam ne mooy doxal sport bi. cyclisme bi mooy mhm. lan. alors ki nga xam ne mooy suñu njiit du moom sax lay attaqué mais c'est que fédération fi mu toll nii moo existé wul. pourquoi existé wul parce que seen mandat jeex na depuis 2019. ki nga xam ne muy njiit gi di président bi dëkkul Sénégal ba noppi def ay cumul de fonction yoo xam ne kenn xamu ko sax déjà voilà man de xamu ko comment il s'appelle déjà bon euh, bon woon def publicité mais boo ma ko laajee il faut ma wax ko Michel Thioub hmm. la tudd euh, ça fait trente cinq ans qu'il est dans le système ci man ma ko xamee de la fédération dans le système il était directeur technique après président de fédération alors war na nekk mag alors waaw mag la war na normalement il doit dépasser les soixante douze ans 70 hmm. ans 70 ans normalement war na ko dépasser hmm. tu vois ça ne marche pas maintenant sa marche pas parce que euh, Sénégal ba Sénégal de ñetti ligue moo fi am ñetti ligue muy dakaar Thiès saint bu yàggul rek la ñu fexe ba ñi nga xam ne ñu ngi Ziguinchor monte foofu ligue te ba fii mu toll nii ñoom sax reconnaître ñu ko parce que hmm. du seen avantage ñun nag wax dëgg yàlla ñu ne lii il faut que ñu dox ci ça fait ça fait bientôt douze ans ñu ngi ciy dox. foo xam ne rek fu mel ni yéen am nañ fa pexe pour mën ci waxtaan ñu waxtaan ci xuloowuñu xeexuñu mais c'est pour juste redynamiser li nga xam ne ñun ñëpp ko bokk te ñun aussi mu nekk suñu passion waaw. waaw loolu daal la ñuy la ñuy dox. d'accord gis nañu ci dëkk Afrique yi lu mel ni Rwanda. Mhm. ah que souvent ñuy amal ay tours. Euh, du Rwanda par exemple. Sénégal fii man gëj naa dégg yu mel noonu tour du vélo tour du Sénégal. Mm-hmm. qu'est-ce qui ne va passer parce que la fédération ne marche pas. loolu moo tax loolu surtout la fédération ne marche pas du tout parce que amuñu siège. amuñu siège donc vous n'avez pas d'interlocuteur fu mu toll amuñu archive amuñu archive et ils fédèrent pas. fédération sénégalaise de du cyclisme. amul siège amul siège. tey koo romb ci yoon bi mais loolu moo tax. sénégalais yi bëgg nañu vélo mais xamuñu fu ñuy jaar xamuñu fu ñuy jaar. amuñu interlocuteur quoi rombal oui amuñu interlocuteur amuñu interlocuteur. aujourd'hui man sori naa ci trop parce que man fii ma nekk euh, candidat la waaye waxuma ko pour def campagne. Mhm. mais fii ma nekk samay morom ñoo ma fi teg am ci man yaakaar maa ngi ciy dox di di di coordonner ak ministère mais fii mu toll nii. ministère bëgg nañu lool tenir assemblée bi mais malheureusement waa ji nekku fi ba noppi am na yoo xam ne dafa matalewul hmm. bu yàggul bi nga xamee ne demoon nañ bu bëgg a tenir assemblée parce que depuis décembre 2020 hmm. la ñu décidé woon pour def assemblée ñu war a xool texte yi fekk ñoom texte yi dañ ko retouché hmm. yow xam yéen xam ngeen ni mu demee ñu retouché texte yi alors ministère rejeté assemblée bi ñu bëggoon a def au mois de au mois de juillet parce que texte yi baaxu Hmm. mais comme ni ma mais assemblée boobu assemblée générale la. assemblée est-ce que mën ngeen ko amal sans présence su actuel président bi. bon euh, euh, prési actuel président bi saa ñu koy tenir day ñëw. ok day ñëw mais bu mujj bi mu ñëwee. Euh, amul amul parce que texte yi baaxul. ok mais aussitôt dafa dellu parce que mënu fi toog. Hmm. il est en France pour des raisons de santé. mais en dehors de de de de la mooy le fait que ngeen mën a am benn fédération boo xam ne dafay dox normalement avec euh, président boo xam ne mu ngi fii en plus ngeen soxla tamit euh, jumtuwaay parce que vélo dafa cher surtout vélo boo xam ne dangeen koy defee cyclisme on sait que c'est quelque chose qui coûte trop cher parce que c'est des vélos de qualité c'est des vélos spécialisés Euh, soxla ngeen jumtuwaay normalement de la part du pouvoir wala da ngeen bëgg d'abord defaraat fédération bi am siège ensuite soog a attaquer les autres besoins du vélo au Sénégal. bon ñun lu ñu soxla mooy ñu jëlaat fédération bi. Mhm. defar ko defar ko avec nos moyen ah. Mhm. d'abord avec no moyen parce que beaucoup d'expatriés yoo xam ne man j'étais coureur maa ngi doon dawandoo ak ñoom euh, ku ci nekk bëgg na ci dugal loxoom. mais par rapport à fi lekk li fi nekk ñemewuñu ko. Hmm. rax ci dolli parce que ñooñu mën naa citer ñoo xam ne xëy na sax daan nga dégg seen tour ñu mel ni Rambo Thiam ñu mel ni Charlie Medina Constance Coucou Gomez n'est-ce pas ay euh, David Evorage euh, tous ces gens-là Aliou Diallo et autres alors ñoom ñëpp bëgg nañ ci dugal seen loxo mais ak li fi nekk. amuñu intermédiaire quoi amuñu interlocuteur voilà. Hmm. alors aussitôt aussi aussi am na ci ñoo xam ne defoon nañ ci seen alal. ñu ci mel ni ay Jo Mansour ils ont mis tout leur argent ay Jeannot Diatlin ay ay ay Diatlin ay Jeannot Engrand beaucoup de gens. yoo xam ne c'était des coureurs sénégalais ñu ngi cité nii yëpp oui <laughs> mais ñoom ñëpp dañu dem. et c'est l'actuel euh, comment dirais-je euh, l'actuel euh, encadrement qui les ont pratiquement écartés. Mmh. pratiquement. et c'est des gens yoo xam ne ils attendent que le système change pour que ñu ñëw. ok xaaruñu dara. léegi lan mooy sa message bi nga xam ne. dañ koy yóbbante autorités yi surtout ki nga xam ne mooy le ministre des sports monsieur Matar Ba. Mm-hmm. Euh, je sais que c'est un homme réceptif. Mm-hmm. est-ce que vous avez essayé de la rencontrer dans ce sens-là. voilà euh, j'ai tenté à maintes à le rencontrer malheureusement ça n'a pas abouti. Bon, j'ai compris par rapport à ses engagements et autres, et vraiment, j'ai beaucoup de respect. pas une raison, J'ai beaucoup de respect pour lui, mm-hmm. mais euh, engagement, il est un peu débordé, surtout aussi. Mm-hmm. Vous avec, avez euh, écrit une euh, audience, demande d'audience, j'en ai fait voilà. pratiquement trois ou quatre. Demande. Demande. waaw monsieur le ministre il faut le rencontrer. waaw xam naa nag ñàkkul nag bu feexee xëy na ah. Euh, je souhaiterais maa ngi koy ñaan aussi. amoo ay contact xam nga Sénégal tamit noonu lay doxee amoo contact. waaw wax nga dëgg contact yi moom contact yi bëriwul nag. Hmm. contact yi bëriwul. mais xam nga daal comme ni nga ko waxee ñàkk intermédiaire. Hmm. ak contact. mais en dehors de ça le le, le vélo soxla na ay infrastructure le football ils ont besoin de terrain par exemple pour jouer le basket idem. c'est voilà est-ce que le cyclisme vous avez besoin bon, d'infrastructures fixes. à hmm. mais. pratiquement li fi nekk comme infrastructure infrastructure route nationale yeeg ak yooyu daf ñu doy sëkk daf ñu doy sëkk parce que tenir une compétition Dakar Thiès Dakar Mbour gis nga vélo nit ñi lu bëri dañ ko ci xamul même ci publicité Imaginez une compétition sur Dakar-Mbour aller-retour. Ouais. Tout ce que ça génère comme panneau publicitaire. Qui, ouais. qui, top ci ginnaaw le Tour de France. Tour ouais. de France mooy troisième compétition mondiale. waay xool li koy topp yëpp comme comme ñun dañ koy seetaan fii ah. voilà avec beaucoup de plaisir. mais da ngay gis koo xam mais da wax. waay euh, euh, les villes de les villes et tout ça bu ñu ne mu jox campagne bi c'est magnifique. <laughs> et puis sur le plan touristique même ça peut contribuer à vendre le pays. mais beaucoup. beaucoup mieux que même la musique. Mmh. même la musique parce que la musique déjà. ça ça se limite dans un cadre mais gis nga vélo. et imagine par exemple aujourd'hui si on on on mettait le vélo ñu teg vélo ci place mais problème bi am Casamance du fa am. Hmm. parce que bëgg nañu vélo. Hmm. mu am ay compétition et on on risque on peut avoir des champions là-bas je l'ai dit au président de de ligue de de Ziguinchor ma ne ko les jeunes qui sont là-bas ils mangent naturel ils ont le physique naturel. Mm-hmm. et on peut avoir beaucoup de champions dans cette zone là mais zone bi musul am club. Mm-hmm. musul am Kolda ba am mm-hmm. club ah. musul am ligue mais actuellement actuellement j'ai saisi tous ces gens là et pratiquement ils, ils sont conscients de ça ba foofu am ligue. mais tour du Sénégal am amoon na. alors tour du Sénégal. société la musoon na am société la. société la société bi président bi moo ko moom. ah bon il n'en a pas fait. moo ko moom national ko moom. pour organiser un tour, il faut, ça génère beaucoup de moyens. Mmh. Bon, boo gisee organiser wuñu ko daaw organiser wuñu ko ren parce que moyen amul. Hmm. te pourquoi moyen amul loolu la nit ñi war a xool mais ñun je le dis pas pour euh, truc parce que je suis candidat non non je dis il y a beaucoup de gens et beaucoup parmi nous. de sa volonté à l'heure actuelle am nañu benn suñu benn xarit bu baax. boo xam ne dafa defoon légion d'honneur alors moom euh, vélo bi muy def vélo handicapé la mm-hmm. mais le 12 bii di ñëw moom mooy organiser compétition ak xaalisam fii ci Sénégal fii ci Sénégal fan euh, ci euh, yoonu Tivaouane Pël bi xam naa dinaa leen jox kii bi ok d'accord ah, comme ça bu ngeen fa mënee teew ngeen teew d'accord te day jàppale. vélo normal la pas vélo pour handicapé. non vélo handicapé. vélo handicapé ok genre tricycle. tricycle waaw. am naa dinaa la yónnee photo yi. ok nu muy euh, mel li mu ci jot a def. ok il roule avec les mains. avec les mains. ok ok. mais li mu ci jot def. si sur le sable. non sur la route. sur la route oui. ok. sur la route. Mhm. dinaa la yónnee. yi lien compétitif dem na sax Burkina tout récemment avec ses propres moyens gagné foofu champion bu Burkina. Hmm? vélo handicap mu gagné ko et ça les a beaucoup surpris. d'accord quel est le message le dernier que tu pourrais envoyer alors le dernier message daal hmm? Matar Ba xam naa ne comme ni nga ko waxee comme ñun amuñu. Euh, interlocuteur interlocuteur ak ku ñu jàppale. waaw alors moom dama naan nañu ci gars yi jàppale ku ma mën a euh, yóbbu ba ma gis Matar Ba waxtaan ak moom vraiment dinañu mën a jàppale lool. alors comme ni nga ko waxee léegi sama message mooy man dañ ma teg foo xam ne. Hmm. je suis obligé. ma sacrifié wu pour que vélo bi jëlaat place am. Hmm. fii mu toll nii ñu ngi ci ay travaux yoo xam ne vraiment xam naa buñ ko entamé ñu mel ni Baye Ciss Jalal Wasli Jo Mansour El euh, Emad El Masri dinañ ci dugal seen loxo ak ay coureurs yu mel ni nii ma. cité woon léegi lañu wala. c'est des sénégalais c'est des sénégalais. et dans les temps je sais qu'on ne rien du vélo Sénégal non mais dans les temps parce que pas. c'est pratiquement mort. secteur boobu. mais quelqu'un comme Jo Préra qui est le seul diplômé de vélo au Sénégal Jo Préra il fut président de la fédération sénégale de course automobile président de la fédération sénégalaise du cyclisme dans les temps il est là à Sicap Mbao et il est écarté c'est pas raisonnable aujourd'hui auparavant le Sénégal faisait partie des meilleurs pays du cyclisme hmm. en Afrique mais à l'heure actuelle ñoo mujjee non amul vélo kay amatu fi. ñoo ñoo mujjee. fu ñu dem fu jël ndaare. velo moom amatu fi moom Sénégal moom. fu ñu dem jël ndaare alors vraiment dama ne dama ne ci message bi daal damay ñaan euh, le ministre mu dimbali ñu. jàppale ñu vraiment. pour que ñu organiser yi nga xam ne moom lañ daan organiser comme des courses classiques nga xam ne c'était le grand prix du chef de l'État Hein, grand prix du président de, euh, de la de l'Assemblée ministre des sports grand prix ak championnat yi Euh, au moins ñu mën a organiser yenn compétition yi nga xam ne euh, dina dina dina régulière quoi. Mm-hmm. dina régulière. Mm-hmm. Mm-hmm. laajuñu kenn dara comme vous l'avez dit tout à l'heure. est-ce que est-ce par exemple. oui parce qu'au Burkina Faso nous avons vu des gens dans un terrain de football. comme ça di organiser compétition de vélo ay jigéen rek. grand li fi nekk ci vélo war na seen di dawal vélo quoi. li fi nekk ci vélo. fii Sénégal <laughs> mënoo ko de mënoo ko décompter di nekk fii si vélo. ak activités yi ngeen mën a am. en tant que chez moi actuellement j'ai j'ai quatorze vélos. des vélos de compétition je me suis cassé le la jambe il y a au mois de mai je suis je me suis couché trois trois trois trois mois deux fractures au niveau de la cheville et du péroné. Mmh. mais avec le courage et l'amour du vélo j'ai repris j'ai repris mes entraînements la semaine dernière sur vélo fixe. Hmm, hmm. vélo fixe. Mon dernier vélo, je ne l'ai pas encore euh, utilisé, je l'ai acheté à 2 millions 300. Vélo Vélo. kon du n'importe qui moom. mën a def vélo mais lu tuuti la am na vélo yu jar 10 millions 12 <laughs> donc yéen état da cee war a dugal loxoom quand même. non ñun fii mu toll nii trouver une élite. ci ci de de de grands coureurs. ci crise bi ba pare dimbali leen. ñu am ci crise bi ñu toll nii. Hmm. état bi nañu dimbali ñu ñu def suñu assemblée. ba pare ba pare. ngeen xam kenn ku nekk fan la féete ku ci nekk xam fi nga féete. ngeen monter club yi. ñu monter club yi partout dans le Sénégal ensuite partout dans le Sénégal. waaw war nañ ko amal. et en un temps record. Ah que tour du Sénégal dafa war a am. en un temps record. et chaque région ñu mën fa organiser. benn tour des championnat benn tournoi yi daw mmh. vélo vélo vélo yi sax di daw mais regarde au mois de décembre au de décembre les gens achètent plus de vélos à leurs enfants que d'autres cadeaux. au moins de décembre. xoolal xoolal problème bu baax la de loolu xoolal bi ñu am tout récemment <laughs> avec la la la la grève des des transporteurs et tout ça. waaye grand bu ku nekk yoroon sa vélo. Hmm. est-ce que di ko yëg. non ñu yor vélo sax maa leen gis bu baax. man barki dem gis naa vélo boo xam ne bi ma ko gëjee gis ba léegi 72 laa ko gëjee gis. Ah mooy comme vélo Peugeot yu jëkk yooyu donc les gens ils se sont trouvé des moyens pour se déplacer. Hmm. et quand ça s'est rimé à un vélo. à l'Antiquité. J'ai dit, mais c'est pas possible. j'ai même je me suis dama ne man sax pourquoi photo wu ma vélo parce que archive la woon. ndeysaan waa ji di ci góorgóorlu mu leer mooy il va arriver au travail à temps il se fait son sport et voilà. sa santé tu vraiment. oui <laughs> merci beaucoup. ñun daal nañu euh, Matar daal euh, jàppale leen ñu. ma dina leen dina leen ba moom. dina leen jàppale sax xam nga Matar Ba xam naa ne lu mu yëgul rek moo am. ak activité politique yeeg tout à mais je sais que nit la boo xam ne am na écoute quand même il est réceptif tout à fait waaw ñu profité rek lancer ko message parce que n'a pas dit le ministre du sport mhm. ni du football ni du basket mais le ministre des sports des sports donc c'est au pluriel donc képp koo xam ne da ngay da nga am activité le mhm. sport mhm. le ministre am na droit ak obligation déglu la mënuñu waxuñu ne mën na faj toutes les doléances à fait mais quand même bu amee écoute bi. déglu la recevoir say doléances. jéem ci dara. je pense que dina mën a sottil dara sax dans le temps. waaw donc ñoo ngi lay jaajëfal yow tamit. non euh, ñu ngi leen di sant. te gëm naa ne est Sénégal. waaw waaw waaw surtout nag surtout <laughs> non mais vraiment man man man de j'ai beaucoup apprécié votre acte. nii ngeen def neex na ma trop. parce que euh, xam naa ne. Euh. waxtaan bii moo waxtaan fii. bëriwul li li ma koy waxtaan. sa c'est vrai ngeen ma yaatalee autisme bëriwul. <laughs> Ah. et je suis persuadé xam ne dans sous <laughs> ministre bi dina ma woolu na la woo dina ko gis. <laughs> dina ko gis c'est sûr et certain que dina ko gis. incha te bu ko deful sax ñun ñii buñ ci mënee dafay jéego dox ko. parce que vélo si suñu aada la bokk nag. loolu moom nit xam ko ñàkk ko xam. velo ak sénégalais ñoo dëkk. rawatina nag ñun ñi dëkk ci àll bi quoi. waaw ndax nit boo demaan béy sa gerte ba pare. Uh-huh. li ngay njëkkee jënd mooy velo <laughs> boo jaayee récolte vélo ngay jënd. waaw donc vélo dañ ko war a sukkali fii ci Sénégal dafa war a am place am fii. surtout et nous avons de belles pistes maintenant. ah oui rafet ah xoolal fii Dakar day dem ba Thiès ba Thiawane. ah ba Saint-Louis. et les corniches. et les les extension bi dafa rafet. corniche su Saint-Louis. boo ko bëggee jaay foog nga jaar ci vélo. xoolal xoolal corniche su corniche su euh, hmm. bii bu Thiawane bii bu Thiawane bi voilà corniche bu Thiès bi autoroute à péage baa ngi fii. am fu nit mën a jaar. donc bu ñu bëggee valoriser tamit li nga xam ne effort état da koy tam parce que boo demee au sud du pays par exemple. tout à am na ay tali yoo xam ne. Mm-hmm. mais vélo dafay daw nice boo image quand tu as dans l' esprit. nga xool ni ko tubaab yi di filmer da nga xam ne vélo dañ ko war a delloo dañ ko war a delloo place am. fii ci Sénégal quoi yooyu ñu lay jaajëfal lu baax. vraiment di la souhaiter bonne chance. merci merci beaucoup. waaw di la souhaiter bonne chance parce que li ngay def nii tu le fais pas pour toi même. non non du tout voilà tu le fais pour le sport. pour le cyclisme sénégalais. surtout des gens comme vous méritent d'être soutenus. merci beaucoup. merci beaucoup mon frère. merci. <laughs>